bugaay yi waaji dégg dégg texte bi seen seen seen fi diine tërëb ndax dañuy xaw a mel ni ko jaaxle mu ne wa ida qaala ana muxtaajun ila muhammadin fi cilmi alzaahir duuna cilmi albaatin أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى لأن يعني مفكر فوحني من كت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ci ilmu zahir dong laa ko soxla waaye mbirum baatin moom soxlawuma ko ci wala sax mo waxe ko neneen ne man kat sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ci sharia dong la ko soxla waaye xaqiqa moom ajiwu soxlawuma ci muhammad nee ko wax lolou yow yaay yes jifi ak chrétien yi ah kon xamna bima naa bi ma déggee sun gaa yi weddi xaqiqa sax moom daa defoon na xaqi naa gaa dañu xaj diine ñaar dégg nga maam lee ñu def ko xaqiqa lee ñu def ko sharia loolu rotut loolu suuf yee koy wax waaye bu ginnaaw ku makk nag moo dem ba ba ba wax lii nga xam ne sax waxuma sax lii xaaj diina ñaar waaye weesu na foofu ginnaaw weesu na di ko xaaj sax ñaar waaye weddi benn bi rek maa mbaa képp koo xam ne nanguwoo saxal ne ñaar yëpp ci yonent bi la jógee rek yow yéefar yi chrétien yi la yee la gën ah ma ne loolu nag du wax ju ndaw moom loolu moom ku makki daal moom xam naa ne doy na waar